mbokki internet yi da leen nag jàmm Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé de l' action sociale fu mu toll nii nag qualifié nañ ko ci mu nekk ministre bi nga xamante ni daanaka moo gën a daal di médiocre gën a nulaar ci histoire bu politique bu Sénégal loole nag bu sukkandikoo ci Walf net mi nga xam moo joxe nag bile xibaar ne CRD daanaka dañoo daal di écraser Abdoulaye Diouf Sarr CRD ne congrès pour la renaissance démocratique ak coalition jot na booloo daal di def ab conférence de presse démb di wax ci mbas mi bàyyi ne wàllum politique wax ci mbas mi Covid 19 ni nimu daal di nag tënkee réew mi ba noppi troisième vague bi ñuy wax ak ni si ci faatu ñoom ñi démb daanaka lépp dañu ko jël daal koy tekk ci ndoddu Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé de l'action sociale ci ni mu géré pandémie bi nga tax naka ñu daal di dakk ay qualificatif lu ci mel ni nag ne irresponsabilité bu état bu Sénégal Macky ak ay ministre am ñu sentir nag ci gestion Covid 19 bile loolee nag bokk na ci nag euh, virus bi nga xam ne nee ñu nag ci Macky Sall moo ko jël daal di koy wasaare ci réew mi maanaam Macky moo jël virus bi daal di koy def ci satala mel ni ko ci réew mi lépp jaarale ko ci euh, tournée économique am bi nga xamante ni nag moom la ñu daal di nag gisoon mu def ko boobu la tournée ñoom sax ñu jàpp ne ab campagne électorale déguisée la waaye nag li nga xamante ni mooy laxisme bi ñu nemmeeku ndax dégg nañ Abdoulaye Diouf Sarr ci scandale ndax nag ñoom ñoo waa CRD ne nag bu fekkoon ci ab dëkk bu sérieux la nak daanaka Diouf saar moom dafay daal di démissionné mbaa ñu limogé ko ci nu mu gën a gaawee ndax ñu dégg ne pandémie bi mi ngi wàññeeku képp ñu dem daal di wekki lal yi nekkoon ci centre de traitement épidémiologique yi ak tamit yu bëri nag ci plateau technique bi dañ ko daal di jëloon yenn ñu jël ko ba ñu dégg sax ay révélation yu ki nga xamante ni moom mooy ma Madiambal Diagne bokk ci ñoom nekk ab conseiller en communication bu président Macky Sall li xew daal di wax ba Pape Alé Niang journaliste daal di koy reprendre ne Abdoulaye Diouf Sarr nag bokk na ci scandale bi gisoon nañ fi faux médecin bi ci corona bi lañ ko daal di nemmeeku gis nag ñu ne nag ab jegeñaal Abdoulaye Diouf Sarr la moo ne ab faux la ba noppi itam moom Diouf Sarr nag ba tey ji mu toog rek nanguwut a démissionné ci gestion corona bi le moo ne ci Ebola ba mu amee ci a Guinée ba ñëw ci Sénégal cas bu njëkk ba ñu géré ko daanaka Eva Marie Coll Seck mi ministre de la santé dañ ko gisoon moo daal di nag amoon ci benn détermination boo xam ne daanaka corona bi mu ñëwee rek moom la ñu njëkk xalaat ci nag ni mu géré woon li nga xamante ni mooy Ebola bi mu Diouf Sarr tey ñu koy tuumaal ci mbirum corona business bi nga xam ne nii ñu waa ministère de la santé nag dañ ci laale bu baax a baax ne ci ñoom ñuy jël li nga xam ne mooy matériel yi ba ci sax yenn ci ay li nga xamante ne moom mooy gaz lacrymogène bouteilles yi ñoom ñoo koy jëlaat di ko dem a jaayaat di di structure privée yi te lépp